yow Adji Sarr yow laay waxal tey Sénégal bu tàkkee na la leer ni yow yaa ko taal tey bépp bakkan bu fi dee wala mu rot fi na la leer ni yaw aji saar yow yaa ko rotal yow Adji tax nga tey ma rusa doon jigéen yow aji lan moo la war a mën a jalal tey nga mën a hypothéquer avenir u Sénégal ak avenir u Afrique président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day jàkkaarloo ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko teg yow aji saar en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir si sa kanam lan moo la war a mën a jalal tey ngay hypothéquer avenir u Sénégal aji man jigéen la wante yow tax nga tey ma rusa doon jigéen yow aji bu fekkee ni am nga ay mbokk na leer ni gàkkal nga sa askan yëpp yow aji bu fekkee am nga doom wala ëllëg yaakaar nga am doom xamal ni sa doom googu wutal nga ko way bu dul fay yow aji képp ku bokk ci askan rus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire aji te na la leer ni xale bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ñoo xam ne jaruñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow di leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam ni dañ koy bàyyi ñu koy faagaagal si noonu ñun patriotes yi dañoo taxaw temb te bu leen yëboo ngeen xam ne balaa ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko ngeen jaar suñu kaw li may daaneelee nag mooy les jigéen la ñu pour xeex président Ousmane Sonko na leen leer ni ay jigéen ñoo koy xeex ñun ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal rangooñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow aji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal la si sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay fekk yal nañu yàlla àtte ak yow président Ousmane Sonko na la leer ni la patriotes yi tey lañ la gën a feddali suñu kóllëre suñu wóolute te nga xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge mu leer leen ni même si vous enfermez président Ousmane Sonko des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique ah et cette ce vent de renouveau ah cette révolution qui est née personne ne peut l'empêcher wasalaam